ndax li nga xamante ne mooy jëng nee naa lu yàgg la ci ci ci daara tey jii boo demee daara ji nekkoon muy muy muy njaareem boo demee daara Sëñ Basiiru Jëng kër gu mag tey foofu daara yi fa nekk yëpp donga yi nga xamante ne dañuy jàng nga xamante ne dañuy daw ñu të bu ñëwee dañ leen di jëng te dañuy jàng ba mokkal alxuraan bekki bind li nga xamante ne mooy kaamil xuraan tey ji ay kilifa lañ ci réew mi euh, buñ koy def defuñu ko ngir toroxal ki nga xamante ne mooy taalibe bi defuñu ko ngir jàppee ko jàmm defuñu ko di ko liggéeyloo defuñu ko di ko demloo tool mais dañ ko ko defloo ngir ëllëg mu nekk koo xamante ne ku jub lay doon ndax boo ko teelu def noonu ëllëg mën nañ ko fekk si këram ñu mënate ko ëllëg mën na nekk si ñi nga xamante ne ci mbedd mi ñoom leen di jàpp di leen mënate leen dugal ci prison bi ñuy tux yàmbaa di def lu bon balaa caana xale bi nga am foo jaar ak moom mais loolu defuñu ko ngir lu bon da ko defoon ngir jàngaleen alxuraan ngir yar xale yi léegi nag état nag moo war a xool li nga xamante ne boo demee fi nga mel fi nga xamante ne mooy daaray kokki lu ñu tuddee daaru salaam la am la am daaru salaam boo koy xool mooy këru jàmm tey jii nii ku të lay dugal foofu noonu am na boo xoolee am na am na toilette ci biir am na sëriñ bu lay jàngal man mi sama mag ma bokk ak ndey ak bàyyi fa lay jànge ba mokkal alxuraanu karim def fa ñaari at kon gis nga kokki ñoom ñoom méthode boobu lañu yor dañ lay tëj mais lépp loo xamante ne moo war ci biir dina la fekk ki lay jàngal toilette di ngay lekk am na koo xamante ne jamono si Ahmed Sakhir Lo ab ministre la si jamono jooju bi mu ñëwee dana lii dañ ko war a toj waaye bi mu ñëwee Abdou da koo wàccee kon loolu dafa nekk loo xamante ne mook daara ñoo ànd fekkee dëgg rek lañ bëgg a kumba am ndey ak kumba muñ xeñ ndey te ndeyam ne fi moo indi coole yëpp ñun ñëpp dañ di doom réew mi nekk ay sénégalais li doxal réew mi ñu di ci participer ñun ñëpp ñu bokk ko li ñu bokk ñun ñëpp muy alalu réew mi at bu jot ñu voté budget boo xam ne ay milliards lay doon jagleel ko éducation li di jugee ci suñu gafaka li ci des di jugee ci bitim réew ñu ñu koy dimbalee te yooyu yëpp dañ koo tënk rek ci éducation muy jàngale bañ demee ba dara desul lu dul séddale kumba am ndey ak kumba muñ xeñ ndey te ndeyam ne fi am kee ñu ne yow li ngay jàng bëgg nañ ko neex nañu dañ lay fay di fayal ki lay jàngal oto ba lay yóbbu fa ngay jàngee ji sax dañ koy fay ki ci des nag ñu seetaan ko mu nekk victime déjà loolu rek viole la bu fekkee viol rek dañuy wax loolu rek viol la lu ñëpp bokk nga jël ko jox ko ñenn ñi sa ñaari doom yi nga am jur leen kii nga yóbbu ko ci école muy jàng duñu wax la muy jàng baaxul mais métier la kiy jàng li nga xam ne muy ji moo war a jiitu lépp muy diinaam di al alquran kiy jàngee ji ci école ba chaque jour nga jox ko paas mu dem ñëw di ko jox lu muy lekk di ko jëndal ay yére yu rafet muy sol du ñëwee benn moroomam ka daara ji nag nga seetaan ko léegi bu erreur amee kan moo ko sabab yow waajur bi waajur bi nag tey mooy état ndax moo boole njaboote ñëpp moo yor doole ji moo yor gafaka gi te moo séddiñale bañ doyal ñi ci des nag mu seetaan leen ak seeni propre moyen sëriñ daara bu def lii nga xamante ne lu yàgg ci daara la ñu jël ko def ko mandat po loolu ñun dañ koy naxaru ñun ñun daara yi ñun lépp lu ñu mel rek kër yi moo tax nañu jox ñi nga xamante ne mooy waa ahlul quran mooy ñooñu alquran yi nañ leen jox seen seen seen seen valeur nañ leen jox seen xaq lii nii képp koo xamante ne sa xol alquran mi ngi ci wala ngay nitu daara wala ngay julit war nga koo metti lu lii ñu def seen xaadim ay juróom ñoo ko jox ndigal ne ko na na na na leen mënate na leen na na na na leen jëng mu jëng leen ba mu koy def soxor taxut iñaan taxut seede yi ñu seede ci moom nit ku baax la nit koo xamante ne defar na ay doomi aadama yu du jeex kon tey jii nii bu ñu nee jël ko def ko mandat de dépôt war koo àtte loolu dafa nekk loo xamante ne ñun lu ñu metti lay doon. sëriñ daara wala yarkat bi jëng ki mu yar est-ce que dana ko liggéeyloo ki nga jëng du liggéey kooku root sax mënul ko defal. déjà kon dafa am benn problème bu am rek nga bëgg a régler problème boobu moo tax nga jéng ko jéng boobu jéngu yar la dina tax bu ëllëgee boo ko dindee ci jéng booba dootul defati ci àdduna mbóosóor muñ koy jéngee di ko yóbbu kaso te loolu xëy na ku ko paase paase nga ko ci waxin waaye mën nga wax ne quatre-vingt-dix pour cent yi jaar ci daara jaar nañ ci loolu ba ci man mii di wax ak yow saa yoo soxlaa wax ci dina ñëw seet ma jéng nañ ma ay quelques mois bi may jàng alquranu karim te jublu ci woon lu dul yar ma ka doon def loolu tey li gën a cher ci àdduna bu ma ko amoon jox ko ko ndax xam naa li mu def ci man lan la kon du jéng pour xeñ la sa àq du jéng pour terroriser la jéng la pour yar la ndax sa xel yeggagul fooy xamee li baax ak li bon kon dañ lay imposer far la force di la yar di la yar balaa sa xel di yegg foofu nag nga nga nga fekk boobu yow defaru nga ba noppi léegi dañuy jël lislaam jël sharia jël rendi xatit amul kenn ku koy jo jooyloo kon côté tumuranke boobu dafa dafa dafa feeñ te loolu dafa yàgg ci li nga xamante ne mooy mooy mooy gouvernement yi fi jaar mooy état yi fi jaar buñ sañoon lu ñu tuddee daara moom du fi amati jën indi ay ay modernisation dëgg la moderniser daara baax na tey jii ku sañoon nit ki fi ngay jàngee dina set doo yalwaan di nga lu set wicci bu jàng alxuraan ba mokkal ko doo daw ñu tegle ci conditions yi nga xamante ne conditions yu baax la mais alxuraan am na sëriñ daara yoo xamante ne amuñu moyen boo bëggee dundal sa njaboot dundal sa soxna dundal say njaboot yor lu ma tey jii boo demee kooki lu mat 4000 doomu aadama ña nga fa tey jii di fa yeewoo kooki amul yalwaan fa ñooy ñoo leen jox ndékki ñoo leen jox añ ñoo leen jox reer muy lu metti si ñoom kon loolu état da da leen war a jàppale te kooki boo xoolee résultats yi ñuy def amul benn daara bu koy def jamono jii nii ba ci école bi bu xool concours yeeg yëpp boo demee dañ naan ñi nga xamante ne dañoo génnee kooki niveau niveau bi ñu am du bokk yeneen xale yi du bokk yeneen xale yi. d'accord naa nag buñ ne suñuy loi dafa tere loolu sëriñ daara yi xam seen bopp ndax régler solution rek moo tax mu def loolu sëriñ daara boobu régler solution rek moo tax mu jéng mais du bañ moom boo ko seetee sax mooy ëpp way jur wa yërmande ci ci ci ci dongam boobu danaa di wax ne gisuma ku ëpp yërmande que sëriñ daara ci ta ay taalibeem bala nga koo xam nga laal ko mais nag yërmande googu day ànd ak mu bëggal ko mbaax gu toll ni du ko bàyyi mu nekk ci lu ko neex mu di ko yar moment bi mu koy yar nag boo ko fa fekkee da naan da koy terroriser day mel ni rek sa mbokku tëgg bi nga xam ne mu ngi defar or ba saa yoo fekkee or ba ci safara sa ñu koy lakk da nga naan xanaa da koy yàq waaye bu fa génnee rek mu yokk ko ab taar ñoom ci loolu lañ nekk. léegi nag buñ ne loi da koy bañ yaatu mu ngi indi ay problèmes yu dul jeex man li may conseiller sama bopp di ko conseiller mboolem sëriñ daara yi ku të say waajur bañ indi ci daara ji nga jéem a defar ci waxtaan ci yoon ya nga xam. mu lànk tëne du tegu ca yoon wa nga delloo juwaat ko ay way juróom dëgg la ndaw askan wu nar a yàqu ji ëllëg ndax man gis naa fi ay nit yu baree bari yoo xam ne demoon nañ ba seeni parent ñàkk ci ñoom yaakaar ñu tënk leen yóbbul sëriñ daara ba lu tax tënkuñ leen yóbbul police parce que xam nañ dafa yàqoo ñu tënk leen yóbbul sëriñ daara ba sëriñ daara bi jaar ci méthode ba muy jaar ku nekk nag ak méthode ba ngay jaar pour yar di ca jaar di ca jaar bu kooku tey mujj nekk defarkat. maa Abdou nee na balaa ñu supprimer daara nañu supprimer drogue bi ci réew mi. nañu supprimer ñi nga xamante ne danoo jugee ci yeneen réew wala nekk si dëkk bi doomu dëkk bi di def naka sadu noonu ñu leen di jox ay carte bala ñoo supprimer daara wala ñu supprimer ñooñu kon nañu nañu supprimer ñooñu pare balaa ñoo supprimer daara maanaam carrément yow parent bi dootoo ñemeeti sa doom demati daara bu kaa bu mel noonu amee te benn nit rek la du sëriñ daara yëpp def benn rek la bu doon connerie sax kenn ko def benn taalibe la ko mais day mel ni sëriñ daara yi ci Sénégal yëpp ñoo ko def connerie boobu day mel ni taalibe yi ci Sénégal yëpp doomu daara yëpp lañ defandoo noonu te nee naa tey lañ leen di xeeb de waaye ñoom rek la ñu wóolu ñoom rek lañ óolu ku ci am doom ci ñun ne tudd da naan ool ma imaam imaam boo dégg taalibe la ndax ci daara la jàngee xalifa général boo fi mën di gis bu dee diina la toogal ca daara ji la jógee njiitu association bu bu saxoo ci diina ci daara la jógee kooku ngoy oo mu ne ngunum ngunum tuddal la la muy wax sax xamoo ko danga gis rek daal nee na ngunum tëfli ci nopp bi ngunum tëfli ci nopp bi xamoo lan la wax mais confiance nga am ci moom waaye nag problème bi tollut nu taxoon ñu médiatiser ko comme nii mu demee photo ko damay wax tout le temps ma bu ñu sëriñ daara bi da ko jéng dafa violé loi waaye ñi ko photo tasaare photo bi moom li ñu violé du loi xale boobu ndax dafa amul droit ci âge boobu mu toll xamagul dara wala xamagul lu bëri ñu jéng ko tas photom fu ne ci àdduna bi est-ce que xam ne xale boobu ëllëg lan lay dooni président de la république lay dooni wala sëriñ daara lay dooni wala xalifa général lay dooni wala euh, lay dooni wala lan lay dooni image la ñuy def ak moom maanaam mooy li ma la wax rek alquran wax na ko bu yàgg yuriduuna li yutfiu nuur allahi bi afwahihim loolu rek mooy wax ji seen seen mission buñ la ko waxee ak buñ la ko waxut buñ maslaayeeg buñ maslaawut mooy fay leer ak yàlla gi nuñ fexe ba alquran jii ñu teqale ko ak doomi jullit ñi léegi nag danañ ko jaar ci seen i gémmiñ bi afwahim la wax mooy média tey mooy leneen ak leneen mooy réseaux sociaux fu ne fu ñu xam rek pour diaboliser danañ fa jaar waaye yàlla tontoon ne leen nee na wallahu mutimmu nuurahu walaw kariha alkaafiruun lu mu métti métti li ma bëgg mooy am mooy lan sama leer gi dafay daj dafay mat ba pare dafay sax donte weddikat yi def nañ lu ne danañ financé seen alal mu ne fa sa yunfiquuna thumma takunu alayhim xasra danañ financé ay milliards mais day mujj rek nekk di neen te réew bi gën a jaaxal lu bi yii xeex alquran ci àdduna Sénégal ci la bokk